consommation euh, locale ba made in Sénégal. made in Sénégal Pape Cheikh moom moo tax euh, ñu nit ñu rek euh, def ci lu liñ ci liñ ci war a def yëpp afin que les Sénégalais ñu mën a xam ne y a tout ce qui se qui se fait au Sénégal parce que tamit dañ nekk ci environnement boo xam ne nii c'est des jeunes Sénégalais des patriotes ñoo xamante ne ils ont ils avaient les moyens jël xaalis boobu dem toog ci bitim réew def comme ñëpp mais ils ont choisi de rester au Sénégal de se d'être formés ici. dem ci euh, ñi nga xamante ne yàlla mee na leen euh, seen xel euh, màcc jëm ci defar ñu ngi defaree dàll. Mhm. ñoom it nag ñu den ok d' accord y' marché kii est mhm. moom mooy dàllu Marrakech. Mhm. Pape Cheikh Marrakech du rek événement la. moom la xale yi tuddee Babous. mooy Babous ay bàyyi ma àggalil Babous. <laughs> alors Marrakech ni ma bëggee tur boobu Babous. voilà dafa bouché. waaw dafa bouché dafa bouché dafa bouché Marrakech cosaanam du fii. Ah. Marrakech la. Maroc moo tax ñu. loolu tax ñu tuddee ko Marrakech loolu tax tuddee ko Marrakech. voilà ko Marrakech ñu wolofal ko. voilà donc Marrakech. ñu ko doon importé d'ailleurs sax ba léegi dàll euh, boo koy xool booy wut Marrakech original bi. marocain lañ lay wax marocain lañ lay wax. donc euh, ñoom ñoo ko doon faral di def parce que ñoom ñoo doon gën a liggéey euh, der bi. Ah, defar ko ba mu nooy noonu. Mm-hmm. fulli ko mm-hmm. léegi Sénégal yi jàng technique bi. Mm-hmm. léegi commencé ko defar fii surtout nag léegi. léegi di ci defar ay dàll yoo xam ne Pape Cheikh daf ñuy ça va vraiment dañ ci yokk. kañ nga koy teg ñu seetaan ko day wax ci Marrakech ma ma wax ayca waaw. danaa galaxandiku de xanaa balaa maa brosse xanaa. danaa galaxandiku parce que ñi toog Marrakech di seetaan waaw d' accord mais <laughs> d' accord mais mais le plus important moom mooy ñu mën a tenir compte ne euh, Sénégalais yi nekk fii tamit euh, y' a marché kii là boo xamante ni il a été créé parce que kuy sol dàllu Marrakech du chaque événement du événement rek les vendredis déjà boo koy xool ñëpp Marrakech la ñuy sol et c' est des chaussures qui se portent tous les jours. am na ay sandales yoo xamante ne ñu ngi koy defar tamit fii ci dëkk bi donc mu nekk benn marché boo xamante même si c'est dix millions de sénégalais yu yu koy sol donc marché potentiel moo fi nekk donc ne nit ñi léegi euh, tendre vers la créativité kii ñuy waaj wane aussi c'est un jeune boo xamante ne moom da ci dugg mais sef ko dafa ko dafay dafay daf ko defee dafa référé Marrakech d'une autre manière utiliser yeneen matière li ñuy def mooy dañuy seetaan reportage bi juste après on revient comme ça ñu expliquer leen maintenant euh, vraiment qui euh, lan moo làqu ci ginnaaw euh, motivation yooyu. on regarde. sa qualité bi ñuy defar moom xam nga même yi daal yi fépp fépp fépp lañ koy yóbbu. di dem Europe gars yi ñëw fi di ko jën dem foofu di ko jaay jaratul ñu dem Europe pour wut ay daal ak bu fekkee babouche tamit jaratul kenn di sonn dem di wut ay yeneen babouche babouche yi moom vraiment defe naa ni dañ ko defar ba mu baax te ci ay cuir ay matière cuir yu baax lañ ko defar day am cuir day am daim day am kevlar tout ça jarax yi gis nga yëpp ay tressé la te matériel bu baax lañ ko liggéey quoi matériel original yëpp en cuir la cuir 100 pour cent lañ koy defaree talon yi ay talon original la xam nga mu ngi nii vraiment fii moom jaratul kenn du sonn daal dem di wut fenn ay daal ku fi si wàllum daal moom boo ñëwee fii di ko am incha allah ci qualité bu baax. c'est vrai que ñun jot nañu am euh, euh, chance mu découvrir li muy defar ma defaral na ma dal euh, dal yi El Hadj Moon Mbaye Garmi di sol yëpp moom moo koy defar am na qualité et puis on dit souvent lu ñu defaree local souvent finition bi moo ñu xaw a metti mais yii dafa am finition et c'est magnifique il a beaucoup de talent ah, il a beaucoup de talent te lu ne fàng kenn du ko kenn du ko jeex defe naa ne <laughs> buñu ko buñ ciy wax tamit wanewuñu ko ça ne donc gis ngeen ko yéen seen bopp daal yooyu noonu andi ci touche am benn matière bu rare boo xamante ne du tàkk muy le kevlar le kevlar c'est une matière boo xamante ne du tàkk. Mhm. boo ko dugalee ci safara du jàpp. donc mu ci defar ay marakis ça coûte très cher même si on te la on te vend la paire à 30 000 jar na ko. donc des chaussures en kevlar le jean da koy utiliser da koy bu bari euh, cuir semi cuir donc matière yëpp lay liggéey te gis ngeen yamu rek ci babouche dafay defar aussi euh, silipas mooy daal li nga xamante mooy carax yi. noo tuddee carax yi. Euh, silipas Gambien silipas rek ñu wax waa Gambien. yaa ngi sol si silipaas <laughs> amuloo ay silipaas. silipaas comme ñoom ni ñu defee français rek ñoom anglais bi silipaas. silipaas donc ñoom euh, ñu si defar ay carax donc carax yooyu caraxu ah, dar benn bakkan wala renverse yi donc gis nga Pape Cheikh mu nekk vraiment benn secteur boo xamante ne tey sénégale yi amatuñu euh, vraiment complexe wu. dem jàngi. ñëw ñibbi ci seen dëkk. defar local parce que euh, y a la demande. qui est supérieure à l'offre. Mhm. on est quand même million millions. Mhm. si c'est 5 de dom d'hommes. Mhm. qui ñooy jë ñooy jënd wala sax 1 million. ñooy jënd dàll boo xamante ne par exemple yaa ngi koy jaay à 10 000 francs. fais calcul. donc vous voyez que xaalis bu bëri moo nekk ci secteur yooyu mi duñu ko gis parce que on ne on ne calcule jamais avec le nombre mmh. et actuellement macha allah plus euh, y le nombre plus ñuy gën a yokk macha allah plus ñu ñuy mën lu ñu consommer rek euh, vraiment euh, mu mën a andil njariñ euh, ki nga xamante ne mooy fabricant bi donc encore une fois euh, je pense que c'est un Sénégalais qui qui gars yi dem seeti ko mi ngi fii ci ginnaaw cinéma bi element Mansour bu demee gars yi demee foofu nañ ko fa fekk Euh, et li ma fi ma bëggoon tëjee aussi moom mooy kii euh, soxlatul sax comme na ma ko doon defee au début de dire que euh, Sénégal yi dematuñ di ko jënd léegi nit ñi ngi di commencé dem je vois de plus en plus nit ñi di consommer local. mais xanaa kii réaliser amul bouton bu mu mën a bës. pour pour pour pour wala télécommander bu mën a. <laughs> d'accord léegi euh, loolu loolu Pape <laughs> Cheikh Diallo euh, je tenais à le dire et que euh. sénégalais yi léegi ñoom seen bopp ñu ngi continuer ñu ngi commencer de plus en plus di consommer local ah continuer leen loolu rek moom moo mën a développer n'attendons pas que les mm-hmm. autres viennent développer le Sénégal mm-hmm. mais développer le Sénégal par nous-mêmes en tout cas consommation locale bi ñun ñuy génn ci télé bi xam nañ ci dara parce qu'il y a tellement d'artisans qui nous aident dañu imposer d'ailleurs par exemple bu dee quartier général lépp lu ñuy sol ñun ñëpp local lay lu nekk lu nekk local. Euh, yooyu baax na ci donc prenez la pen euh, c'est vrai on interdit à personne dem jënd lu la neex. mu mm. defaree feneen ndax ku ne libre nga def lu la neex mais di bàyyi xel tamit euh, suñu artisans yi loolu defe naa am na solo merci beaucoup Exidex pour Made in Sénégal il est 11h.